parce que Dabala mii ñu rey man xamuma ko woon mii ko donte man maa moom sori wuñ ay secteur mhm. mais li ma xam ci moom kenn ku nekk li ngay def yow rek la engagé parce que tuuma yi may dégg ci moom sax kenn waru koo wax mhm. parce que nit ki mënut a dund ba faatu ñu koy commencé tuumaal ay borom ñaari tur ay góor jigéen loolu kenn du ko tuumaal doomu aadama te amoo ci preuve rawate koo xam ne dem na parce que suñu bi nee na mhm. nit buy dund ba faatu képp képp koo xam ne li nga xam ci moom ci a rafet wax ko bu dee da nga xam ci moom safaan noppil mm-hmm. parce yàlla moo gën a xam ñëpp sa ku ne moo la gën a xam sa bopp te dara suturaal mm-hmm. kon sutura boobu nga xam ne doxal na ko suñu diggante ñu ñëpp kenn ku nekk na nga suturaal sa morom loolu moo am aywa dégg la kàddu dama a waaw moom laa wax léegi sa mbokk mi nga xam ne mooy sa collègue journaliste bi dama ne tuuma ci boppam lañu ñu warul jël di ko teg ci nit xanaa xamu ne nit buñ la xasee tuumaal su la neexee dootoo jaamu yàlla ndax tuuma dafa dis dis goo xam ne ku ñu ko jéggalu boo léegi di ngeen taxaw ci kanamu suñu borom ndax yonent bi nee na balaa bu bu leen jëlaat bu leen tuumaalee te amu ci lu ko leer kooku yéen ñaar ba keroog yowmal xiyaama su la neexee nga taxaw ci kanamu yàlla demandé ko ay compte ndax tuuma dafa fort tuuma du lu du lu ndaw Aziz mii nga xam ne faatu na li ñu koy ñaanal mooy yërmande yàlla ndax jullit la woon waaye nag li mu doon def ci wàllu mbiru boppam loolu moog yàlla la parce que suñu borom nee na kenn ku nekk li ngay def dinaa wéet ak yow ba nga jàpp ne yow rek laa bindoon ndax kenn ku nekk fii fii fii adduna bi saxuñu fi de kullu nafsin saa'iqatul mawt bu fekkoo loolu dañ ko donte dañ ko comploté ak li ko nit ñi waxee ña ko comploté bu ëllëgee yàlla dinañ taxaw ci kanam suñu borom ndax bi xàkkimil xàkkimiina rek mooy am bu ëllëgee jugement bu mag ba bu ëllëgee dinañ leen woo kenn par kenn ndax yàlla bindul benn bakkan ngir keneen di jël bakkanam yàlla moom moo bind bakkan te moom moo ko war a jël ak ku la ci comploté yi sunu borom nee na bu ëllëgee dinaa leen tax di ngeen taxaw sama kanam ma àtte leen yéen kenn par kenn kon lii ñuy gis nii ci Sénégal di ko gis ci àdduna bi yëpp mooy li ma waxoon sànq ci tàmbali bi maanaam axiru zaman moo feeñ axiru zaman moo yegsi si moo waral ngay am ay déception ci nit ki la gën a jege nga jékki gis ne kii su ma suñ ma su suñ ma waxoon ne moom mii dina takk ci lu may comploté wala lu may rey kon du ko mën a gëm ndax lan moo ko waral nit ñi dañoo àndatul sa suñu borom tax nit ñi dañoo àndatul ngir yàlla ndax ànd ngir yàlla complot du ci am war du ci am ànd jaayante lay doon tàqali ko jëwante moom moo fi am léegi waaye yàlla taxatul. alors ci ko jàngatee foofu dañuy juum sax xarit sax am na. xarit am na waaye day fekk xaritoo boobu yàlla rek sos ko yàlla sos ko parce que xarit am na parce que am na am na ñoo xam ne yegg nañ ci xaritoo foo xam ne yow boo taxawoon sa kanam bëgg a jël bakkanu kenn ki moom mu taxaw joxe bakkanam kon xarit am na waaye loolu lan moo ko war a lal mooy dëgg dëgg rek moo ko war a lal mais li xew léegi dëgg lalu ko bu fekkee ne xaritoo bi dëgg ko lal kon kay coow du am mais bu fekkee ne xaritoo bi dëgg lalu ko ay fene ko lal ak ay naafeq ay worante ay sosolante kon xaritoo amul mais xaritoo dëgg bi tax ñuy wax mooy yàlla mooy koy lal ngeen ànd te yàlla tax bëggante te yàlla tax soppante te yàlla tax lan tanaalul birra xatta tunfixu mimma tuxibuuna wa lan tuuminu xatta tahabbu yàlla nee na du ngeen duggal àjjana mukk lu dul yow li nga bëggal sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal sa mbokkum bopp da nga koy bëggal sa morom waaye léegi lan moo fi am di kenn ku ci nekk di jéem a waajal moroomam ci loo xamante ni ah, pour tegal ko ndëgg sërëx gasal ko kàmb jëw ko yàq ko di ko waxal lu bon loolu du xaritoo kon nit ñi li koy saafara leen dong la mooy nañu delluwaat ci sunu borom subhanahu wa taala kenn ku ci nekk nga xam ne di nga faatu kenn ku ci nekk nga xam ne lépp looy fexeel sunu borom ndax yàlla naa la wax dara de gis nga Aziz mii yàlla da koo dimbali ndax lii mu am nii mën na am ñu bari sax duñ ko am ndax moom dañ yàlla suñu borom nee na yàlla nee na du jubal pexem warkat moo kenn ku nekk na nga am confiance sa bopp gis nga bu sa xol setee nga jox ko sa borom képp ku lay fexeel balaa pexe maa sotti yàlla weer ko. yàlla weer ko mën naa am ak lépp lu mën a xew mën naa am xolam rafet na rek. d'accord alors su biir loolu def ci nga xamante ni kilim bi am na ba léegi Sénégal yi boo tàllal micro daf lay wax naa la nañu indiwaat ñu fray wu rek benn nekk bu fekkee ne dañoo dañoo tënk ñëpp bi jiite réew mi moom it mu tënku ci ndogalu yàlla yi parce que réew kat kenn du ko yor ci anarchie ndax bu ñu waxee Sénégal da ngay dégg ñaan Sénégal pays laïque la waa pays laïque boo xam ne ñu ci réew ma ay jullit lañu ñu ëpp ci réew mi ay jullit lañu mais élection sax boo koy def ñi nga xam ne ñoo ëpp ñi rek ñi ëpp ci ñu ñu wateel ñooñu ñoo gagné mais peine de mort demande sociale yi ndaw yi nga xam ne xamuñ ci dara sax dañoo wax ku rey dañ laa mais boo demee ci réew yi nga xam ne foofu gëmuñu yàlla atuwuñ ci diine sax dañoo jël pen de mort teg ko boo demee réew réewu Amérique nga demee Angleterre réew yooyu dañu wax na ñoom ku rey dañ laa war a rey lan lañ ci jublu baa xam nga ne loolu mooy jàmmal ñëpp fi ne loolu bu amoon ba ci ñi nga xam ne duñ ay jullit sax ñooñu loolu jàmm la ci ñoom parce que lu baax la lu baax la parce que yàlla dafa bëgg ne rek ku tooñ rek kéem li nga tooñ nañu la fay lu toll boo ñu la jamee paaka muñ buñ nit bu ñuy fayu nañ fayu kéem paaka bi ni mu toll la jël jam la ko dindi ko buñ daggee sa nopp nañu dagg sa nopp yow parce que loolu mooy ak mandute peine de mort lu raciste yàlla moo ëpp yërmande ñëpp peine de mort benn mbir la boo xam ne ni ñu koy déggee mooy kenn ku ci nekk li nga def sa morom rek ñu def la ko loolu donc mooy peine de mort waaw loolu moom yàlla mooy leeral yàlla moo ne képp kuy fexeel nit sam pexe du jub man nee du ma jubal pexeem am noonu loolu moo waral nga dégg ñaan yuuxu du dina jib fi ñu ko foogoon mooy koo xam ne daf lay jege di nuru nuru ab soppe yàlla di ko leeral mooy kenn ku nekk na nga ñaan suñ borom képp ku lay fexeel rek yàlla suñu borom di la ko am nga ci mbetteel yow. non non yëpp ma ci mbetteel xam nga lu tax parce que seen yàlla taxul woon. Ah. àndu intérêt rek lañ moo doon lañ ami fetal internet euh, ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax comme ni ñu leen ko doon toppalee booba ba léegi euh, ci crime bi nga xamante ni amoon na foofa ca technopole muy ki nga xamante ni moom moo di Aziz Dabala ak Wally ki mu nekkaloon ñu fekk leen foofu rey leen rey bu ñaaw bi ci biir loolu nag gis nañu li nga xamante ni moom moo fi xew boobu ba léegi ginnaaw information yi nga xamante ni jot ngeen ko à travers Dakar Plus moom lañ leen di toppal ba léegi ginnaaw bi ñu ci taqalee ki nga xamante ni moom moo di Nabou Leye Nabou Leye nag ma fàttali leen rek mu nekkoon ki nga xamante ni ku gënoon jige la Aziz Dabala ku nekkoon xaritam ci li ñu mën a gis wax parce que loolu rek la ñu gisoon ci image yi ñu doon ànd guddi ak bëccëg euh, di liggéeyandoo ba sax mu koy woowee papa ak ñu demee noonu mu nekk koo xamante ni si ku ko jige la waaye tamit ku sësan ci moom rëkk la euh, ba tax na tey ginnaaw bi nga xamante ni jëye ji am na dañu ko jàpp sone ko euh, ba tax na tey ji mi ngi fi nga xamante ne moom moo di géejawaay ci ci tribunal bi voilà war a jàkkaarloo ki nga xamante ni moom moo di procureur bi ginnaaw bi nga xamante ni téye nañu ko booba ba léegi ah, ci def li nga xamante ni loolu rek moo ci war euh, ñuy continuer rek ci Dakar Plus di li nga xamante ni information yi comme toujours ni ma leen waxee rek nee lépp loo xamante ni aju na ci mbir mi wala sax lépp loo xam ne xew na fii rek euh, dinañ leen ko toppal temps réel tegal leen ko ci table bi ngeen seetaan waaye tamit euh, jox leen ay information yoo xamante ni juste la te vrai nekk loo xamante ni si di ngeen ci mën a jëfandiku bu baax a baax a baax Euh, mu nekk loo xamante ni nag lu doy doy waar la parce que euh, bu ñu demee ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jigee ñoom la ñuy tuma xamuñu nag kan moo def du ñu ni nabu moom moo def euh, du ñu ni tamit keneen moom moo def parce que du ci man di am rek yoon mi ci tal bu wa dina ci génne li nga xamante ni moom moo ci am que soit nabi moo def ou nabu deful loolu lépp dina leer parce que tamit wóolu nañu suñu justice réew Euh, dina ko teg fi nga xamante ni foofu la ko war a teg euh, ba lépp loo xamante ni rek aju na ci ñu ko xam waaye ñun ñu bàyyi benn yoon dañuy ciy topp rek ndaxte loolu moo nekk suñu rol euh, di informer juste et ba tax na tey ñu déplacé bu ñëw fi nga xamante ni moom moo di Guédiawaye nar leen teg tegtal lépp loo xamante ni rek xewe na fi moo xam mu concerné ki nga xamante ni moom moo di